Adama Diakhaté Adama Diakhaté sortie bi Mbacké Sakho def si moom ak Modou Kama quoi semaine passé tey nga ko doon rediffuser tey tey ko doon rediffuser tey xaw ma moom nga doon dugal audio mais sortie boobu ku Mbacké Sakho il a très non Mbacké Sakho boobu daf ci daf ci ah, dafa gagné débat bi quoi tellement dafa gagné débat bi bu dëgg rek dee dëgg lim yor xaw ma dëgg la wala du dëgg mais def jëmmi débat bi moom da ko gagné quoi franchement soo ko dégloo rek da lay convaincre quoi. waaw sorti boobu noonu mooy loolu de dana waar de bata asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> di nuyu Adama Jaxate eh, sëñ nga Cheikh Mbacke Sakho maa ngi wax ni eh, donte rompat na lu bari ci waxaab yoone yi kuréelam bii di quraan yoon donte ñoom dañ koy bañ moo xam leen muslim kon waaye din ñu bari nañ ko fekk si surtout ma laaj ñoo ñu doon wooye eh, ay waxaab yu na dinañ ko fekk si te tam te bari nañu si maam di dagg parce que li muy wax li muy wax a ah, xam nga ko lay woo ci alxuraan kase kase kase boo boo nooy yow fekk yow nga ngaa ëppal ci diina ji baa nga nooy bopp ci diina ji danga koy fekk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 del xool waxaab yu ne dañuy ñuy def ci ñoom ñooy ëpp ah, waaw ku ci débat ak ñoom boo tëddee sa njëganaay di nga xam ne la wax lan la di nga tàmbalee dute ku seetaan si yéen débat bu jeexee di nga tàmbali donte tey nag sëñ Mbàkke Saaxo moom tey moom kama caw la ñuy félicité daa mel ni tey moom moo rampat <laughs> ñoo ne wàllu wàllum jëlee ñaar ñaar yi nag mooy seen problème kooku moom problème si ñoom. salaamaaleykum Seydina Ousmane maa ngi lay gis nga li nga wax ni si audio bi. dama la koy deugalal barki démb waxna ko face au destin am ku may tontu nan ma euh Mbacke saxo waxu fi dara nangam nangam mais Mbacke saxo dina la xamal ben affaire bala ka nit di songu ci débat la dem ba geustu limu nek mom do ko ci songu mais bo taxawé ci alcorane ak sunna sunna ci gaay euh, sunna wala dara te comprendre lu mu nek bo démé mu yobul la yomal xiyam même euh ki numu tuddati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 kon nag kuy wax ci alxuraan daal kooku moom sang la yal na barka alxuraan wàll ak ñiy déglu alxuraan ñiy déglu tamit